ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin moom mooy bureau assemblée nationale nag dafa daal di ajourné bi lekk débat d' orientation bi ñu ko doon xaarandi bu ñu sukkandikoo nag ci njiita njiital groupe parlementaire majoritaire bile bu ñu koy xayma dogal la boo xam ne ñoom jot nañu ko jël ginnaaw nag ba Ousmane Sonko bañee rek ne du amal déclaration de politique générale ci kanamuk yileek député mu mel ni jamono ji daal jaayante doole la boo xam ne daal mënees na jur beneen coow bu ñu sukkandikoo ci docteur Momar Thiam xam-xamam màcc lool ci wàllu communication politique loole mën a jur tam assemblée nationale bu ñu tas tasar bu fekkente ni rek daanaka jubbantiwuñu loolee di manquement ya ñu gis daal ca boor accord ko règlement intérieur ba enquête yéene kaay nañu nag jamono jil daal dafa mel ni guerre ba saf na lool diggante exécutif ak législatif Ayib Daffé di njiital groupe parlementaire bi Yewwi Askan Wi la mu xamle moom mooy ñàkkub waxtaan nag ci orientation budgétaire bile moom mag mënuta tere gouvernement bile ñu daal di rek def seen ak liggéey waaye gis-gisi ko Théodore Chérif Monteil moom ab député la woon moom mooy tas assemblée national nag bu fekkente ni war naa am gën gaa yéex daal wala boog gën gaa gaaw fi lekk weeru janvier atum 2025 kott la ñu ko mën a def kon mu mel ni jamono ji assemblée nationale moom ma ngi ko jaanteeg Ousmane sonkoo le point actuel ni kay ci loolu nag nañu jamono ji daal bu ñu ko xayma député yu benn Bokk Yaakaar la bëgg daal moom may euh, jël Ousmane Sonko fexe daal ba mu ñëw ci assemblée nationale ba indi ko fa waaye nag bu ñu ko xaymaa fi ñu toll ni faw rek ñu daal di am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay yoo xamante ne ni ñoom ñooñee daañu rek mën a teggi article 87 bu bile ko constitution juróom-ñetti fan ginnaaw woot ba nag loi boobee daañu ko adopté waaye nag jamono ji li ci leer ba leer moom mooy député yu Benno Yaakaar daañu article 87 rawatina loolee ñu duppee motion de censure la tribune yéenekaay nañu assemblée nationale moom bañ na euh, rek lank ndaare ne moom du recevoir Ousmane Sonko bureau bu assemblée ba ne na nag jamono ji daal na saf seen ak diggante gatsa gatsa la woote woon daal daañu ko ci fekk si ab crise institutionnelle daal ci loolee la ñu jublu Ousmane Sonko tam yuuxoo nañu ko démb ca boruk marché ba bu Colobane gouvernement ba nag daanaka ci wàllu ko déguerpissement yi bokk na ci daal loo xam ne la tribune mu ngi koy fësal jamono ji mel ni ñoom jamono taxaw euh, coow li nga xam ne lëmbe na askanu ka Sénégal la le quotidien le quotidien moom ci coow loolee daal euh, xëye tamit nañu daal série déguerpissement mel ni Ousmane Sonko lal na ca bu baax a baax moom jiital guvernement bi daal euh, fi mu nekk daal coow la safoon na sàpp ci kawam ndegeen i démb ndaxte askan wa taxawoon daal di ko seetlu ndegeen i démb daal ku ci nekk wax nga ko la la neex bu ñu koy xayma moom Ousmane Sonko nag diggee na fa rek ay financement yu tukkee di délégation ambulant ya waaye tamit nee na jamono ji daal euh, la ñu gisoon ci circulaire que euh, Jean Baptiste Tine daal moom ak Elou Lokoya naka loola yëgu ca dara bu ñu sukkandikoo ci ëttuk yëglekaay bi addu jëmale jamono ji ci les échos yéenekaay bi nga xam ne nee na Ousmane Sonko daal la mu wax moom mooy yëguloon benn yoon circulaire que ministre bile nañu nag jamono ji daal dafa mel ni réeroo am na diggante premier ministre ak ministre de l'intérieur Ousmane Sonko jamono ji daal dina xarlu tam lépp loo xam ne moom mooy terrain yi nga xam daal ñu ngi koy dagat dagate euh, jëm ci loole ñeel ans bernard mu jàpp ne domaine public euh, maritime la direct news yéenekaay dellu siwaat ak ñun jamono ji ci mbiru ka euh, loole di déguerpissement yi leen nañu nag tey ji app laaj la ndax Ousmane Sonko ak jawriñ bi gàllaw lépp jëm ci biir réew mi ndax dañu bokkul ba gouvernement loole euh, jaaxal na ko lool ndaxte Ousmane Sonko dafa mel ni jamono ji daal la muy wax ak li nekk di xew ci boor ba xaw naa wuute lool Ousmane Sonko mel ni sax ku am mbetteel ci mbiru ka yi leen xam ne daal ñu ndigalu ko ministre de l'intérieur Ousmane Sonko ndax boo ko dafay tànqamlu dogal yi nga xam ne daal yenn ci ay jorin yi féete ci gouvernement mu ñu ngi koy jël loolee beneen naka laaj bu yéenekaay bi euh, samp la li ci leer bu leer moom mooy bés bi le jour nee na nag euh, démb daal opération safoon na fa sàpp daanaka bu ñu koy xayma nee nañ nag ay sos la daal yu tukkee ci Ousmane Sonko ak Abass Fall jëm rek ci leen xam ne euh, moom mooy njiital bokk moomeel bu Colobane loolee na ci daal la ñu gis ci ay comité marchand ambulant njiital Pastef ak lépp loo xam ne daal seet nañ ko moom mooy dafa mel ni dafa des rek di natt ba xool ana fan la yëf yi toll jamono ji mu mel ni daal xaw na sotti ndox ca bisaab ba bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataangoo. le l'info yéeni kaay mag nañu jamono ji Ousmane Sonko teggi na tànk ci wàllu daal bile nguur gi naka la mu def moom mooy jamono ji jël ay responsabilités am donte euh, faw yëf yi la rek ñu daal di koy wax ab compétence su ko mairie yi la état mairie ak askan wi ñoom ñëpp daanaka mën nañ leen a duut baaraamu tuuma ci li nga xam ne daal moom mooy occupation anarchique bi ñu seetlu ci biir réew mi le peuple yéeni kaay nag nañu donte loolee am na moom Mouhamadou Lamine Massaline daanaka mayu leen dara ginnaaw nag ba mu tekkee ndombal tànkam ci loolee di ONFP ak présidence bu conseil d'administration ba jamono ji daanaka taal na bu baax a baax Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye bu ñu koy xayma neen nag yaakaar tas na ñoom ñëpp bañ leen rek daal di war la ko waral nag bokk na ci jamono ji ab programme alternatif ak la nga xam ne daal moom la ñu duppe woon ab projet lépp jàpp rek ne ay ndaxasa xandang la ndaxte projet ba xalaat kott la woon nekk loo xam ne daal ñu ngi ko doon naxe askan yu ba jamono ji ñu toll daal gisaguñ ci lenn loo xam ne jot nañu ko jëmmal jamono ji daal mu jàpp ne seen ak ngànnaay du lenn lu ay bopp yoo xam ne dara newu ca amuñu ambition lañu def daal moom mooy xëy rek di saaga justice waaye tamit institution yi nga xam ne ñoom ñooy yu république bu Sénégal rawatina rek pencum ndaw réew ma la koy findeel bokk na ci rek bu ñu sukkandikoo ci moom jafe-jafe yi nga xam ne aji commerçant yi la ñu ngi koy am ñii di dawalkati jakarta ak transporteur ak aji baykat yi mu jàpp daal ne loolee tax na nag jamono ji daal mu takku ba dëgër fas ne taxaw ceetug askan wi ngir xeex seen ak jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ca tukk yëglekaay bi. stade yéenekaay ci wàllu ko tàggat yaram nañu euro France Portugal ñu ngi leen di xaarandi ji rek ci seen ak huitième de finale Kylian Mbappé fas yéene jànnoo ak Belgique bu Romelu Lukaku ci bilek huitième de finale tam Portugal bu Cristiano Ronaldo desandi ba léegi ci taarixam ñoom daañu jàlloo ak réew ka Slovénie muy ñaari jongante yi nga xam ne ñoom ñoo mujjee ci bilek huitième de finale ca wàllu ko làmb jop super ndaje ba fasal la ca waroon Ama Baldé daan na Gris saytuk euh, médecin ya bu ñu koy euh, xayma euh, guy gi daanu na zos naka noonu tamit waaye daal ci bile ko kuréel yëpp ne nañ Sa moom mooy ki nga xam ne daal ginnaaw defet ba mu am ci kanam mu ko ëmm seen moom kot moom mu am ci li nga xam ne ñàkk na ko bopp ci bile ko kuréel ay cha lii mooy lu téye ni tey jii nii solo mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup. cant ak ngërëm ñenn ba ëllëg incha allah. ci yeneen yéen kaay merci beaucoup Grégoire Samba Ngom ñu jaajëfal ko bu baax a baax mbokk yi des na nag ñun dañuy woyal gën a yaatal xibaar yi léegi léegi rek bu baax bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi.